ci yokkee la une des journaux muy lan la ñu xëy titre tey Omar maa ngi lay ziar bu baax di la nuyu. maa ngi lay nuyu soxna Fatima. Hmm. <laughs> naka suba si ça va bien. Ah, tàng à part na de mais maa ngi lay jaar maa ngi lay nuyu di nuyu euh, Serigne euh, di nuyu aussi les téléspectateurs bon qui sont en train de nu suivre. Hmm. Serigne. waaw sama lay bëggee di la ziar. yaa ngi ci jàmm ju bari sax. alhamdulilah di la di la di la nuyu bu baax euh, di euh, rafetluwaat ànd bi. ak yow. vraiment Fatima la grande journaliste <laughs> suñu waay <laughs> vraiment bokk ak yow plateau mu mbégte la saa yu ne di nuy nuyu Seydina Omar aussi véritablement ci liggéey bu am solo bi sur A vraiment léeg-léeg dama ci gëstu lu bare bare loo xamante ni ci liggéeyam la koy la koy taataanee mhm. vraiment di ko def daal ak bëgg-bëgg ak pas-pas. vraiment ak xarañte ak euh, pertinence mm-hmm. parce que source a la muy fësal rek toujours ak différence bi muy am par rapport ak yeneen journaux yi source a sama damay wax ni école la ah. parce que boo liiree seen la càmbar yëpp ak di ko fësal da nga jàngat lu bëri da nga ko ciy jàng ah, donc kon ñoom des dañuy xaw a sore espace politique bi dem mm-hmm. véritablement indi les véritables informations yi nga xam moom la mm-hmm. sénégalais yi bëgg moom nag loolu liggéeyam fës bu baax a baax a baax di nuyu nag sénégalais ñu ñi nga xam ñu ngi ci diaspora bi di liggéey bi ci régie ak ñam donc di ñaan yàlla yàlla may ñu dugg ci waxtaan bi ci bismillahi rahmaani rahim jeex ci alhamdulilahi rabbil jërëjëf merci beaucoup euh, euh, Serigne di la kontaane yow tam bu baax a baax ak di la ñaanal jàmm vraiment mu ngi noonu ay ca ñu tàmbali nag euh, li nga xamante ne mooy les informations jox leen ko la une de Source la ñu koy tàmbalee moom lan la xëyee moom journal bu mag bi lettre réponse de docteur Cheikh Dia limogeage de son poste de directeur Euh, euh, général de l'ONAS Abdou Mbow interpelle Cheikh tijan Dieye loolu la njëkk a xëyee moom journal bi source ba tey mi ngi wax ci réunion à son domicile avec les ex détenus politiques le des représentants du secteur informel le coup de de Ousmane Sonko euh, euh, moom jëwriñ ji Euh, euh, dajale na euh, ci këram ñi nga xamante ne ñoom ñooy ex détenu politique yëpp ñu ñu ñu duppee ay ex détenu politique dajale na leen biir këram ngir waxtaan lañu ci aju nag Omar dinañ ko faram-fàccee léegi. ba léegi nag affaire de 140 milliards mobilisés pour les travaux de VRD et d'électrification des pôles urbains de Diamniadio. chou euh, gras des euh, médias l'unique vérité dëgg bi ci nekk yépp journal bi génne na ko comme lu euh, Serigne wax léegi rek dañuy dem au fond de certaines affaires ngir xam lan moo ca aju ak lan moo ca wund waaye itam génneel ñu les bonnes informations la ca am lépp ak la ca xew lépp Omar moo ñu koy faram-fàccee léegi léegi la une de source a Omar. waaw euh, Fatima maa ngi lay nuyuwaat laa woon de source waa par rapport d' abord ak euh, Abdou Mbow mhm. euh, mu interpellé ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Dieye mhm. xam boo xoolee ñun dañu bindoon ni en fait ki nga xam ne moom mooy ancien DG ONAS mhm. di Cheikh Dieng moom dafa bindoon benn lettre en fait euh, ki nga xam ne moom mooy le ministre Cheikh Tidiane Dièye mm-hmm. pour en fait interpeller ko ci ay question expliquer ko en fait parce que le ministre dafa yaakaaroon ni moom dafa am contrat yoo xam ne nii dañ ko fa jot a signé mm-hmm. notamment pour préparer hivernage bi te dafa amoon ay surfacturation léegi mm-hmm. ki nga xam ne nii mooy euh, Cheikh Dièye moom bind benn lettre pour Euh, xamal ministre bi ne en fait daf fi am ay société yoo xam ne dañ fi yàgg nekk mhm. te société yooyu euh, marché bu taxawee rek ñoom dañuy indi ay prix yoo xam ne nii défiant lu ñu naan prix défiant tout concurrence maanaam Fatima bu laajee 5000 ñoom ñu laaj mil hmm. te xam nañ ni mil boobu mënul def liggéey bi nga xam ne moom la ñuy laaj mais comme que dañ ne hmm. dans les passations de marché on prend toujours ki nga xam ne mooy le moins 10 ans. Hmm. donc ñoom dañuy def loolu léegi nag liggéey bi nga xam ne dañ ko waroon def duñ ko jaarale si yoon. donc quand on a écrit ça bon euh, Abdou Mbow a pris la bal au bon donc il a fait. Euh, il a adressé une lettre euh, bon des questions parlementaires yoo xam ne ni moo ngi koy laaj euh, le ministre Cheikh Tidiane Dièye mhm. pour mu indi ay leeral ci mbir moomu mhm. l'autre chose c'est par rapport à une réunion mhm. en fait le dimanche donc euh, a mené nos investigations par rapport à cette réunion qui a été convoquée par Ousmane Sonko mu amoon biir këram donc euh, Ousmane Sonko bokk na ci ni mu doon waxtaanee mooy sooru ex détenu yi léegi nag ci biir réunion bi dafa amoon ñaari détenu kenn koo xam ne nii bon dafa jëloon dafa jotoon dañ ko jotoon tiré bal mm-hmm. euh, ci événement yi bon euh, ak kenn koo xam ne nii dafa amoon brûlure au troisième degré ñu mm-hmm. évacué woon ko woon Chine mm-hmm. léegi nag Euh, bon Ousmane Sonko ba mu yëgee ni en fait ki nga xam ne nii bon euh, dañ ko tiré woon bal ci bopp moom ba léegi dafa amoon ay difficulté en fait pour dem à l'étranger moom nag mu ñaawlu loolu ne bon loolu waroon na ko yëg quoi parce que moom boo gisee muy liggéey c'est surtout pour ñi nga xam ne nii ñoom ñooy le les les personnes yi nga xam ne ni ils ont eu à subir des violences politiques mooy euh, bon ak ñi nga xam ne nii am nañ ay torture boo xoolee Pape Abdoulaye ture sax temps yi lañ ko évacué c'était pour montrer en fait que moom euh, il est très soucieux Euh, ci sooru ñi nga xam ne nii bon gaañoo na ak ki nga xam ne nii tamit dafa amoon euh, blessure troisième degré ñu mm-hmm. ñu yóbbu woon ko Chine mm-hmm. après mu mujjoon ñëwaat donc euh, Ousmane Sonko a tenu à ce que ñu régler ay papiers pour mu mën a tukki mm-hmm. dem Chine moom ak ki nga xam ne nii bon moom la ñu tiré woon ba l'autre chose c'est par rapport a un marché bu yàgg la nag quoi parce que marché bi du tey c'est ay 2017 yooyu donc marché bi c'était pour vers créé euh, fi nga xam ne nii moom mooy euh, pôle urbain de Diamniadio mm-hmm. léegi nag bon marché bi liñ si wax temps yi dafa bëri donc euh, c'était important aussi de revenir un peu sur ce marché la pour dire ce qui s'est réellement passé mm-hmm. donc marché 140 milliards boo xam ne nii bon Abdoulaye Sylla moom moo ko gagné woon mm-hmm. mais c'était sur fonds propres parce que boo xoolee Diamniadio lu si bëri si marché ñu fa amel wala nguuru Macky Sall bon avant nguuru Macky Sall sax nguuru Abdoulaye Wade ay projet yu bëri ay partenariat public privé la mhm. maanaam état boo xam ne nii d'habitude euh, du am xaalis léegi woo ay bailleur mhm. ne leen léegi ay financé boo leen financé ba pare nag léegi après Euh, man dinaa leen fay avec un taux boo xam ne nii dañ koy definir donc c'est ce qui s'est passé avec Abdoulaye Sylla qui avait mobilisé à l'époque cent quarante milliards yoo xam ne nii dafa dem ci ay partenaires am ut ay bailleurs ñu kii ko cent quarante milliards mm-hmm. mais moom il s'était rendu compte que en fait euh, après bu mu indee xaalis boobu dafa am détournement d'objectif parce que état bi soxla woon na xaalis période Covid ainsi de suite après ñu jël xaalis bi investir ko si leneen donc mm-hmm. ba mu porté woon plainte parce que affaire yi marché bi dafa amoon retard donc les gens se en fait lan moo waraloon retard boobu en fait loolu c'était en fait l'explication lu doon wane nii en fait lan moo tax marché boobu retard donc c'est entre autres les sujets bon ak euh, Abdoulaye Sylla parce que bon y a des euh, y la presse bon qui a écrit sur ça Euh, le quotidien bindoon na si mais le quotidien bon j'ai appris que ñoom ils vont revenir sur euh, cette information parce que bon ils ont été un peu trompés mm-hmm. Abdoulaye Sylla aussi qui a décidé de porter plainte contre le groupe Leral Dame mm-hmm. Dieng bon euh, euh, par rapport à cette information là bon gis naa ni tamit ay direct news tamit bindoon nañ si mais ñoom ils sont revenus un peu pour faire leur mea culpa expliquer un peu ce qui s'est réellement passé quoi mm. merci beaucoup jëf